ay mbóot lañ parce que dañu bëgg douche depuis émission bi commencé ba légui ci douche lañ koy défé je comprends pas ce concept de dem nekk si douche bi di naan café di yey mburu nek ci douche bi di tari axuraan ah man daal xamna ni dal dal dal dal li ma nekk borom xoolu jamaa rek mo tax mënu ma tee wax dara sama anniversaire dañ ma waxon lolu sa sa Instagram yow bu bu spécial bi ban la moom lañ la doon expliquer lolu non non non. la mu doon wax. déggoo ma man ay kankuran laa nekkal ay vampire. lu ñu wax ñu ne. dégg ki xam na ko jinne laa nekk nii jinne yow yi ayoon de di nga déggee sëriñ si di bànn bànn maa ngi jinne fii jinne laa ne jinne amul jinne naa doo de. <laughs> mais dix la man copain ba ni nga la bu baax ci ci invitation bi. mais tamit mais tamit di bëggee moo xool moo gën quoi. yee moom xam naa dinaa ko jël ci émission bi incha allah. di ko bëggee moom réel la parce moom day fay. moom laa mor gër mm-hmm. moom kër kër gi amul kër gi moom laa mor gër la réer la bañkat yan góor yàlla ba pare muy mm-hmm. nuyu muy nuyu këccëb ñun ñun ñëpp ñoo bokk rek bàyyi quoi waxuma waaw ah, da ngay gracier bàyyi ma yéen ma baax la tu vois mm-hmm. booy nga l'avenir

sama kàddu rang. rang kanku kanku. guys guys pas abuser de votre temps. à jeudi inshallah. for real. <laughs> Deal, yaa ngi déglu gars yi.